passé de 45 minutes doyen des jeunes reporters va me tuer aujourd'hui mais aujourd'hui dañuy àndal ñun ñëpp rek laa di làppale xooxaan parce que moo ñu poñe woon ci ci ci temps bi. non non c'est-à-dire moo ñu poñe woon ci moo ñu poñe woon ci temps bi may ñu suñu jàmm li nga taam ci temps kenn amul suñu temps fii génn si li nga nekk génn si li nga nekk en plus de ça il m'accuse il m'accuse yow de bokk foofu yow lay accuser waaye man bu jàkkaarloo ak man fii dina dina dina métti alors bonjour Ibrahima Anne noo def naka suba si alhamdulilah yow eh, moom xam nga da nga compréhensif kenn du yow ci réew mi. ziar naa la di leen nuyu di leen ziar di nuyu xoxaan. Mhm. di nuyu nuyu doyen Mademba Ramata. Mhm. le doyen des doyens. oui mooy sur le doyen des généraux mais lui c'est le doyen des doyens c'est le effectivement. di leen nuyu Aïcha di nuyu euh, Khady Kuna. Aji Kuna Aji Kuna. oui Aji Kuna euh, di nuyu caméraman yii di nuyu. tous les gens qui nous suivent de nuyu waa il faut pas oublier waa Tivaouane Peulh. fa dëkk neexee fa dëkk neexee guddi guddi Tivaouane Peulh di nuyu waa Tivaouane Peulh bu baax a baax. alors Ibrahima très rapidement parce que on n'a pas beaucoup de temps et bëgg nañu quand eh, gën a élargir waxtaan bi par rapport ak ce qui s'est passé le septembre ñun ñëpp xalaatoon nañ ko jot nañ ko parce que jeudi bi passé nga fi toog euh, ñuy waxtaanee li nga xam ne moom moo war am ci guddi gi euh, prérogatives mais également conseil constitutionnel euh, jox na ko euh, toutes les prérogatives pour mu pour mu def ko notamment ci lettre bi nga xam ne nii euh, delloo na ko est-ce que mën nga ñëw encore ci contexte bi nga xamante ni le président de la république am na ko pour joxaat conseil constitutionnel joxaat ko lépp ngir mu delloowaat ko askan bi. waaw effectivement contexte bi dafa contexte bu am solo la. Mhm. parce que Sénégal dafa dund fii loo xam ne lu jar a la c'est-à-dire dañ nekkoon ci ay lu lu toll ci cinq cinq wala six mois. Mhm. ci benn coïncidence benn cohabitation. Mhm. Euh, mën nañ ko wax mën nañ ko tuddee cohabitation sànq yéen a ko doon wax ak euh, invité bi donc mu amoon euh, benn majorité majorité boo xam ne majorité présidentielle incarnée par le duo Diomaye Faye ak Ousmane Sonko mu am benn majorité parlementaire boo xam ne yee Benno Bokk Yaakaar moo ko moo ko incarné woon kii lii di coalition bi nga xam ne président Macky Sall moo moo ko moo ko jiite woon. donc ñële bi ñu amee bi bi ñu amee majorité présidentielle yore nguur gi. donc euh, xel mën na nangu ñu euh, ut benn majorité boo xam ne parlementaire boo xam ne moom ci la ñuy sukkandiku. pour doxal li nga xam ne moom la ñu woowee projet mooy seen programme pour les cinq années euh, à venir donc mais yoon dafa leen dafa leen dafa leen tënk. Mhm. yoon dafa ne il faut que mu am benn diir boo xam ne. tant que yegguñ ci diir boobu duñu mën a euh, tas lii di euh, lii di assemblée donc ci contexte boobu ci ambiance boobu la nekkoon ba 12 ba 12 septembre kii di président Diomaye Faye euh, di sous assemblée bi. Mm-hmm. alors bu weesoo loolu noonu Ibrahima conseil la wax ci sujet boobu par rapport ak tas Euh, constitu constitution. constitution la constitution la constitution dafa dafa wax ñaar ñaar ñaari yëf. Mhm. d' abord euh, wax naa ko léegi nee la dissolution elle ne peut intervenir qu' après deux années de législature maanaam mhm. euh, assemblée bi bu fetewul deuxième anniversaire am mënuñ ko tas. donc loolu constitution bi moo ko wax. te loolu beneen bi mooy que. Mhm. décret de dissolution bi nga xam ne président la moo koy jël pour convoquer collège électoral bi. boobu dey waxaale en même temps jour. Mhm. jour jour jour jour bi nga xam ne. Mhm. mooy bés bi nga xam ne moom la ñuy def euh, élection. Mhm. donc ñaari condition ñaari condition yooyu la la constitution bi fixé. ci première condition bi. mënuñ ko woon satisfaire ñoom bu ñu yeggee au pouvoir. parce que Bassirou Diomaye Faye il a été installé au pouvoir le 2 avril. donc mënu ko mënu mënu ko woon il fallait que donc mu xaar négocier naxande. ba jusqu'au 12 septembre. Mhm. et je crois que c'est ce qu'il a fait donc le septembre bi mu jotee gis na le rek jour boobu la la la la tas assemblée. Mhm. mais euh, condition parce que condition condition boobu. Mhm. il fallait que mu satisfaire ko mënu ko woon mënu ko ko woon jalgati. il pouvait pas passer outre. mais avant loolu la date sur la dissolution de l'Assemblée nationale ça a benn débat boo xamante nii bu bu farouche ci ci ci ci classe politique bi. waaw effectivement dafa am ay euh, moom boo xam ne ay thèse yu doon affronté wu la ñenn ñi nee nañu nee nañu deux ans yi mi ngi mat bi assemblée bi ñu élection législative yi jour bi ñu ko defee woon 31 juillet juillet 2022 donc juillet donc mm. ñenn ñi loolu lañu jàppoon ñeneen ñi jàpp jour bi ñu jour bi nga xam ne moom la def proclamation officielle des résultats mm-hmm. jour boobu jour jour boobu lay euh, lay lay am ans ñeneen ñi nag jàpp ne Euh, jour installation jour installation bi moom mooy nekk euh, ki euh, moom mooy nekk deuxième anniversaire bi te dafa mel ni conseil constitutionnel. ci voilà ci ci date date boobu la date boobu la d' accord. Mm-hmm. ci ci conseil constitutionnel ci boobu bi bi mu ci d' accord aussi moom tëwul rek kii ko. jox joxe ko daf ci daf président assemblée président de la république. moo ko mm-hmm. saisir moo ko saisir d'une demande d' avis. Mm-hmm. par lettre confidentielle donc numéro 00 349. PR cabinet du président de la République le 5 juillet 2024. Mhm. donc euh, après conseil constitutionnel tamit génnee beneen décision euh, mille c 2024 boo xam ne def ko ne la bonne date c' le 12 septembre donc 12 septembre 12 septembre boobu mooy coïncider avec le deuxième anniversaire. de la quatorzième législature. mais au-delà de de cette lettre là bi nga xam ne attribué na ko au président le conseil euh, wala sax les sept sages am na leen lu ci toftal ci ay décisions yooyu aussi on n'en parle pas mais c'est bien à préciser. waaye am na ay am na argument yoo xam ne ci lañ sukkandiku. Mhm. Euh, parce que aussi xam nga décision di juste souvent dañ koy dañ koy motiver. Hmm. ñoom bi ñu koy bi ñu seen motivation yi dañ ne bu bu bu bu ñu waxee législature mooy. Euh, période bi nga xam ne assemblée mi ngi nekkoon ci euh, capacité def benn travail de travail de euh, travail parlementaire donc te ci ñoom ñoom jàpp nañ période boobu législature boobu mi ngi commencé jour bi nga xam ne installé nañu député yi ñu installé le bureau de l'Assemblée nationale et effectivement boobu dafa coïncider avec le septembre donc ñoom jàpp nañ législature bi donc bi ñuy wax législature législature bi 12 septembre boobu ci la ci la ci la ci la démarré jusqu'au 12 septembre donc euh, mu nekk ans. Mhm. donc euh, voilà argument yooyu la ñu la ñu joxe en gros. Mhm. mais euh, ci argument yooyu ñu ubbi bu fekkente ne le président Bassirou Diomaye Faye déjà fixé na datu élection yi mais dafa mel ni date bi maanaam datu fast la ndax ñëpp yaakaaroon ne peut-être dina yegg sax au-delà de 92 édictés par le conseil constitutionnel mais tey temps bi nga xam ne éparti nañu ko est-ce que du donner encore l'opportunité à d'autres candidats de se manifester pour les législatives. mais effectivement effectivement te te ci loolu je crois que le le conseil constitutionnel a enlevé une épine du pied du président. Mm. parce que débat bi poli euh, le débat politique tourne autour de euh, temps bi nga xam ne euh, dinañ ko am. pour euh, def li nga xam ne moom mooy parrainage. Mm -hmm. ensuite euh, fixer caution bi parce que la loi électorale dafa ne chaque veille élection. dañuy concerté wu la classe politique dañuy concerté wu avec le ministère de l'intérieur notamment la direction générale des élections ñu fixé li nga xam ne moom mooy caution mais conseil ci ñaari ñaari ñaari ñaari kii yooyu dafa ne pour le parrainage jaratu ko parce que élection ci élection anticipée lañ nekk te loi électorale bi je crois daf ko prévoir dafa ne bu dee lég euh, élection anticipée jarul ñuy def parrainage mm-hmm. donc euh, foofu ñu ngi ci euh, ils sont sur le bon mm-hmm. beneen bi mooy li nga xam ne moom mooy caution foofu aussi dafa jarul ñuy réunion euh, li nga xam ne moom moo nekkoon caution 2022 donc caution boobu rek la ñuy reconduire mu nekk 15 euh, millions donc mm. euh, donc finalement du am parrainage mais caution benn caution la euh, caution boo bi bi nga xam ne moom la ñuy amal mooy caution bi ñu amaloon en 2000 en 2022. Mm-hmm. comme kon jusque là Ibrahima mën nañ jàpp ne le président jalgatiwul benn loi mu ci tempo bu normal. non jalgatiwul benn loi maintenant am na ñoo xam ne nag li ñu koy reproché moom amoon na décision bi. je crois que il a reçu le, la décision du conseil constitutionnel bien avant mais publié wuñ ko journal officiel siiwaluñ ko donc léegi-léegi ni sax maa ngi doon dégg benn kii de benn benn opposant en venant ci euh, sur la rajo muy wax ne loolu euh, président dafa dafa dafa dafa denc benn information boo xam ne classe politique bi waroon nañ ci jot mais loolu c'est un euh, loolu débat politique la. Mhm. mais mais ci du point de vue de de la légalité républicaine du point de vue normatif vraiment am ba léegi nii amul lenn loo xam ne mën nañ ko ko mën nañ ko ko reprocher maintenant ci floraison candidature bi euh, candidature yi effectivement parce que dañ Sénégal dafa jógee ci élection législative yu métti 2017. 2017 donc on avait donc ci 47 listes yi euh, président dafa dafa sax mujjee laaj avis naan est-ce que mënuñu euh, permettre à l'électeur au lieu que muy jël toutes les 47 listes di bloquer di bloquer processus de vote bi di bloquer bureau de vote bi. Mm-hmm. donc ñu permettre ko à ce que mu jël 5 bu 5 bulletins rek. après dem mm-hmm. retiré wu dans l'isoloir donc conseil conseil nangul ko ko après le président de la République a pris un décret pour dire que léegi bu la neexee bu la neexee mën nga jël au minimum au minimum mën mën nga jël cinq cinq listes rek. après nga daal di dem ci mbañ gàcce gi. Mhm. Euh, daal di voté. Mhm. Euh, maintenant li nga xam ne mooy euh, sote na mooy li nga xam ne mooy parrainage parce que parrainage bi loolu élection 2017 bi moo ko moom moo ko indi woon. Mhm. li nga xam ne traumatisme bi bi ñu vivre en 2017 loolu moo indi woon parrainage bi ba ñu je crois on l'a appliqué pour la première fois en 2019 on s'était retrouvé avec cinq candidats seulement. pour la dañu wàññi woon seuil seuil parrainage bi gis on s'est retrouvé je crois avec euh, vingt candidats. je crois vingt et un candidats waaw vingt candidats <coughs> mm-hmm. donc là mais là waxuma sax dañoo wàññi seuil bi mais dañoo dindi carrément le parrainage. waaw mm-hmm. ah, conseil a recommandé ou bien a suggéré à ce qu'on enlève le mm-hmm. donc dindi nañu parrainage j'ai vu hier le communiqué de la direction générale des élections qui confirme effectivement. le il y aura pas de parrainage donc loolu bu boobaa aussi porte ouverte lay doon. à mm-hmm. toutes les candidatures. alors que donc candidature bi benn filtre la woon boo xam ne dafa doon permettre à ce que ñu wàññi eh, ñu wàññi candidature yi. justement maintenant beneen filtre bi rek moo des. des filtre boobu bon pour beaucoup de politiciens loolu euh, nekkul lu jafe pour ñoom. Mm-hmm. mooy le filtre la caution pour les 15 millions. Mm-hmm. mais justement Ibrahima ban valeur kon euh, la avis conseil waaw foofu moom euh, dafa am foofu aussi benn débat juridique boo xam ne dafa amoon en 2016. Mhm. quand le président de la République Macky bi mu euh, il avait pris un engagement électoral ne day def cinq ans. Mhm. donc bi mu demee ba cinq ans yi jot wala ba cinq ans yi di waaj jot il a saisi le conseil constitutionnel d'une demande d'avis ne ko est-ce que na wàññi son mandat. Mhm. le conseil constitutionnel lui avait dit que non mënul wàññi le mandat parce que moom moomul mandat bi maintenant li mu mën a def mooy pour le mandat qui vient bu ko def ko cinq ans mais le mandat moom daf ko fekk foofu. il il il il il peut pas le il peut pas le diminuer euh, mesure bu ma mënta jël mesure bi du du rétroagir donc day disposer rek pour euh, pour pour pour le futur. Euh, bi mu ko kii yëpp président Macky Sall dafa tënku ci avis boobu. Hmm. te boobu juriste yi nga xam ne dañ nekkoon di du côté du camp présidentiel dañ ne avis boobu day tënk président ñenn ñi jàpp ne yeneen universitaire ne avis avis avis la rek. avis le président peut passer outre c'est comme l'avis de ses conseillers un, un conseiller mën na ko jox avis mën na ko appliquer comme mën na passer outre donc euh, ci conseil constitutionnel aussi avis bi ñenn ñi jàpp ne ñenn yenn judice yi jàpp ne avis bi avis la rek ñeneen ñi jàpp ne avis bi décision la waaw euh, mais en tout cas de cause bu dee bu bu nekkee décision nag bu boobaa article 92 bi day article 92 de la constitution day appliqué wu article 92 euh, lan la wax dafa ne mhm. les décisions de conseil constitutionnel s'imposent aux autorité Mmh. au et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. donc bu boobaa boobaa bu bu fekkee ne décision la boobaa day day day day tënk ñëpp toutes les tous les pouvoirs publics toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Mhm. asuma nag euh, ñi nga xam ne ay euh, simple simple citoyen maintenant il faut ñu préciser nag que ne mesure bi nga xam ne conseil jël na ko keroog le 12 ou le juillet boobu ils ont bien préciser que ne décision la. donc comme décision la ça s'applique à, à, mhm. euh, si on base sur euh, les dispositions de l'article 92 de la constitution mm au-delà de l'aspect juridique bi nga xam ne détaillé nga ko macha allah ba ñu mën ko mën ko comprendre peut-être euh, aspect politique bi mën nañ ko ci faram-fàcce lan nga gis ci élection yi liste yi <laughs> loolu moom il faut ma ñambaas ko ca. je ne suis pas Nostradamus hein. <laughs> Ah pour prévoir le futur en tout cas c'est c'est, c'est des élections euh, ay ouvertes lay déjà que xam nga wax nañu déjà euh, le le le filtre de parrainage à sauté. Mhm. donc euh, ce sera c'est, c'est des élections très ouvertes ensuite. bon euh, coalition yi bon tout le monde est en train de s'agiter bon pour coalition Benno Bokk Yaakaar c'est sûr qu'ils vont vouloir uh-huh. garder leur leur kii maintenant le seul problème le seul hic boo xam ne ñoom am nañ ko mooy que Amadou Ba a créé sa coalition wala voilà, mm -hmm. a créé son mouvement te mouvement boobu boo moytul ci mm. Euh, ci ci ci benn bokk yaakaar lay lay lay tibb. waaw parce que li ñu gisagum nii man euh, figure yi ma gisagum nii yëpp ñoom ñëpp ci APR APR lañu bokkoon. gisu gisu ba léegi gisaguma beneen kii bu bees te. de l' autre côté aussi gis naa j'ai lu Walf Quotidien euh, d'avant-hier je crois ou démb qui dit que waa kii nu koy waxee waa Yewwi waa AP waa PASTEF. Mhm. ils ont snobé leurs alliés maanaam kon ñoom nee nañu seen i rek seen i ñooñu rek la ñuy investir. donc ñooñu dàq nañu ñi nga xam ne aussi seen i allié lañu wala seen seen yoo xam ne existant la wala seen allié yoo xam ne potentiel ñoo xam ne dañoo bëggoon ñëw euh, bokkatu ci ñoom. Mm-hmm. peut-être pour euh, mën a mën a dem assemblée mm-hmm. mais en tout cas laal li ñu mën a jàpp jàpp daal mooy que les élections seront très ouvertes. loolu moom et puis tous les scénarios sont possibles. écouteuse mhm. ah bon waaw parce que si bu amee pléthore. waaw s'il y a pléthore de filles waaw day day day day loolu moom alors merci Ibrahima ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. si pertinence bi clarté bi par mhm. rapport ak euh, chronique euh, juridique bi. on se donne rendez-vous jeudi prochain incha allah. incha allah merci Ndeye Diakouna Dieye à jeudi merci sama lakkale jeudi <laughs> à lundi. ah waaw waaw waaw wax nga dëgg à lundi kon on se retrouve lundi incha allah alors doyen merci à demain incha allah jaajëf leen mbokk yi ci topp geeg teewlu gi c'est fini euh, pour aujourd'hui on se donne rendez-vous euh, demain incha allah euh, ci réveil bi en attendant le programme se poursuit sur Walf TV retrouvez tout juste après moi l'équipe de Petit Déj Fatou Diouf Faye sera là pour vous accompagner jusqu'à 11h l'équipe de la radio ñoom dañuy